on attend le verdict de la Cour suprême mhm. euh, ndax dina wax ñu réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales ou pas mais en attendant la société civile des universitaires fan yële euh, defoon nañ fi beaucoup de production intellectuelle vraiment pour dénoncer vraiment. la situation de de de de l'état de de de droit au au Sénégal. man daal société civile bii Sénégal à une ou deux exceptions près. pour man amuñ benn crédibilité. comment ça dañu démontrer suffisamment qu'ils sont partisans qu'ils sont politiques qu'ils ont un agenda politique qu'ils sont avec l'opposition donc man amul lenn lu ñuy mën a wax loo xam ne dama amal crédibilité société civile dafay veiller sur les libertés publiques. waaw des universitaires c'est c'est grave mais c'est juste des points de vue. c'est pas des euh, c'est pas des euh, des des études universitaires lañ fi génnee ay point de vue politique et partisan la ñu génne bañ ko defee tamit am na yeneen universitaires yu tontu donc loolu y a rien d'extraordinaire par contre la société civile moom. mais mais mais mais loolu mais ça, ça va au-delà même du du du Sénégal. Euh, aujourd'hui même à l'international euh, dañuy poser le problème de la de de de, de, de des libertés mais publiques mais may nag vraiment les gens sont injustes. ah. Euh, ñu vivre ensemble li ñu vivre ces deux dernières années tu as parlé de Ousmane Sonko nga gis position yu mu jël par rapport à la justice gis ni mu défier l'État gis ni mu defee la promotion de la violence gis ni mu discréditer la justice ñu bugg ñu tey reprocher ñun ne ñun ñooy euh, affaiblir la justice que respecté wuñu justice ça c'est vraiment et injuste à, à, à l'égard de l'État et à l'égard euh, des, des tenants de ce régime au contraire je pense que suñu meloon nit ñuy wax kon heure bi duñ fi egsi euh, pour parler très franchement non euh, parce que xam nga un État am na toujours les moyens euh, yoo xamante ni peut-être illégal mais faagaagal nit wala def leneen mais suñu yegsee ba fii ñu yegsi te état bi mos a déborder nga xam ne ñi ngànk état bi réellement dañu gëm les règles démocratiques loolu moo ñu indi ba fii. non pas xam nga responsabilité bi incombe état. Mhm. incombe wul Ousmane Sonko Ousmane Sonko day wax rek. mais si. non mais responsabilité Sonko mais xam nga loolu mooy. loolu tamit bu mag bu ñuy def on ne peut pas dire que l'opposition est irresponsable. non. parce que yow de l'instant. pas irresponsable. mais si parce que soo soo soo euh, waxee ne Ousmane Sonko responsabilité bokkul ak bu état mais état bi ay nit rek ñoo ko lànk Ousmane Sonko en tant que opposant les autres opposants d'ailleurs mais dañu am responsabilité responsabilité ci réew mi le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. et heureusement qu'il l'assume. waaw donc responsabilité yi du benn. mënoo oh, con euh, responsabilité président de la République ak responsabilité d'un opposant. je suis d'accord avec toi. Ah. mais où est problème mais li ma la bëgg que le président mu ngi incarner fonction boobu di garant du bon fonctionnement des institutions su ko deful woon avec beaucoup de responsabilité heure bi waxaguñu waxu ay waxatuñu ay waxu. mais est-ce que le citoyen su fekkoon ne dañuy topp logique bi opposition bi topp kon heure bi xëy na sax Sénégal waxatuñu. mais est-ce que le heureusement en face y a un état. alors dans l'affaire Ousmane Sonko les avis sont mitigés et peuvent être mitigés. Mmh. il s'est passé beaucoup de choses ci boppu citoyen sénégalais bi est-ce que confusion duggul euh, ci ni ñuy manipuler la justice ni ñuy manipuler les les les, les décisions de justice ni ñuy non quand je dis manipule quand je dis manipuler je retire le mot manipuler ci ni ñuy euh, rendre la justice ci ni ñuy joxe les décision de justice ak ci ni justice di dalee ci ñenn ñi et pas ci ñeneen ñi est-ce que loolu indiwul confusion dans la tête euh, des citoyens mu conforter fekk si li l'opposition doon wax naan la justice n'est pas libre la justice est dañ koy manœuvrer dañ koy manipuler à des fins euh, politiques mais man dama bëgg ñu rigoureux jusqu'au bout su fekkee ne euh, état bi gëmuñu démocratie wala ñi yor régime bi gëmuñu justice dañuy manipuler justice wala dañuy changer décision justice kon doon ñu woon yegg si jamais ci ay décisions yoo xam ne dafa contraire à ce que l'État souhaite je prends le cas du juge de Ziguinchor mais même avant cela bul fàtte ni ci procédure Sonko am na fi ay juge yu jël ay avis ak décision yu contraire à ce que peut-être euh, l'État aurait souhaité en tout cas la partie civile aurait souhaité euh, bu fekkoon ne li ngay wax dafa am ni opposition bi doon waxee ne Doudou Ndir est à la merci de l'APR et du régime kon Sénat du génne décision boobu mu génne donc rigueur pour rigueur il faut que décision bu génn ñun nangu ne justice moo ko jël après ñu am fair play après ñu gëm les règles démocratiques waaye su fekkee ne saa yu décision de justice favorable au pouvoir ñu ne la justice n'est pas indépendante mais saa yu décision de justice génnee en faveur de l'opposition ñu ne ñun euh, dañuy res du ñu respecter euh, justice bi baax na parce que à un certain moment ils ont crié victoire donc loolu aussi dafa bokkul ci euh, logique bokkul ci rationalité man dama bëgg rek justice ñu bàyyi ko mu fonctionner. mais mais xam nga le problème mooy euh, ni ñi rendre justice ak ni justice di dale ci nit ñi c'est c'est inquiétant c'est-à-dire on a beaucoup de gens en prison et ça c'est une première en tout cas ces quinze dernières années ci lu ma. témoigner mu wóor ma ne ma mën koo ma mën koo ma mën koo wax je sais pas si vous avez euh, d'autres mu am nit yu bari yoo xam ne dañ leen teg foofu respecté wuñu les procédures dégluwuñu leen xamuñu ci lan la ñuy nekk dañ lay téye neuf mois nga xëy ñu libéré la mu am ñoo xam ne ñu ngi foofu ñu téye leen foofu et puis fait incongru fait xaaral fait bi gën a grave mooy ñoom ñëpp ils ont un tronc commun c'est euh, Ousmane Sonko euh, Pastef. Maïmouna, il n'y a jamais eu autant de gens dans les prisons. Mais il jamais eu des attentats au Sénégal. Il n'y a jamais eu des appels à l'insurrection. Il n'y a jamais eu des menaces physiques sur les gens. Il n'y a jamais eu des cibles euh, dont les noms ont été publiés sur Internet. Assumer le fait que dem leen ngeen attaque kër diw lakk kër nit ñi lakk auto nit ñi saaga sëriñ si ne dañuy génne président la république rey ko ci mbedd mi traîné ko loolu mosul am Sénégal donc su fekkee lu mosta am daf fi am il faut que résultat bu mosta am am fi. loolu vraiment justice garde froideur justice gardée ànd ak xelam. mais li justice façon bi muy rendre justice. mais heureusement que justice bi dafa garde froideur am parce que su su dul woon loolu kon musiba am et vraiment su fekkee ne résultat bi mooy jàmm am yérewuma kenn nag mu dugg ci kaso bi maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp. yàlla ñu génn te delluwaat seen njaboot gi waaye su fekkee ne su ñu nekkee ci biti Sénégal tas violence am ñuy taal kër yi di taal dëkk yi di faagaagal sëriñ si loolu kon ça se justifie amplement que ñiy indi loolu ñu téye leen ba keroog jàmm lan nga bëgg wax par ricochet Ousmane Sonko nit ñu bëri. non moom ak nga bëgg ko distinguer. donc non moom ak ña mu àndal il mérite le le sort. non liy mérite le sort moom justice moo koy wax justice moo ko fa téye donc justice mooy wax loolu mais dama la bëgg a wax ne su fekkee ne ñoom ñoo doon def mbir yooyu tey ñun ñu téye leen mbir yooyu amatul kon ça se justifie amplement le fait que ñu téye leen. à se justifier